ku ne bernde ne teral say gan kuy teral say gan ne ay ndab yu amaanaa mën def lool te ànd ak qualité ba tax na bu leen kenn naxati dama ni lu jekk yànj te ànd ak qualité feeñ ak nga ko mën a ame mu ji KBSB ak GTI lii di ay teg la bool yu sell te rafet ay plateau yakkukaay yu taaru ay mbana ak ay booli dama ni yegg ci biir ay plat en inox yu nice dëgër këcc dis lool te ànd ak design ay thermos café dale ko ci un litre ba ci 16 litres ay plateau mélamine ay kuddu ay torchon ay nappe de table ba si ay fourchette dolli si ay service ndekki ba ci lépp luy électroménager waaye itam am nañu ay glacières yu mag ak yu ndaw ak yu verre à eau ak yu boisson yépp ngi leen di xaar ci biir yéen ñi nga xamante ni yéene berndeel di jaar ci yoon yi fàttewu ñu leen mukk ndaxte am nañu ay barquettes ay tasses à jeter ay gobelets à ay papier film ay papier aluminium ba si mouchoir ah bernde nag dafay ànd ak cet te loolu nag GTI moo si mën ba tax na indi na leen ay raxasukaayu loxo ay paan ay siwo ay poubelle ay defukaayu ndox ay satala njàpp yu mucc ayib te amu ci lenn lu leen di lor ci seen wér yaram ndax ca qualité ba am nañu chaise yu mag pour mag yu relax ak chaise yu ndaw pour xale yi ak yu mën a dalal gan yi ma wax yépp nag ku ci bëgg am gaawal gaaw dem ci magasin KBSB yi ma leen di limal KBSB Touba Mbedum 28 ca marché Ocass tournalu oto Touba Mbàkke yi ginnaaw kër Serigne Mahmadan Mbàkke di nga fa fekk Cheikhouna Diop ci numéro de téléphone bi 76 644 16 24 am na itam ci wetu Orabank bi kër Serigne Modou Lo Ngaabu di nga fa fekk Cheikh Abdou ci numéro de téléphone bi 77 373 31 99 wala nga dem ca garage bu ndaw jàkkaarloog garaj Guédé di nga fa fekk Jili borom Bagdad ci numéro de téléphone bi 76 644 16 25 bu fekkente ni yaa ngi Jurbel demal ca marché Ndoumbé Diop jàkkaarloog quincaillerie Serigne Baba Thiam di nga fa fekk Cheikhouna Diop ci téléphone bi 76 644 16 boo àndee Kër Bamba sunu boutique groupe Touba Industrie kenn du la mën ci bernde